Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune en envoyant Ali Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte. Tafsiru Quran Rabbi israh li sadri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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا inna allaha gafurun rahim innama almuminuuna alladina aamanuu billahi wa rasulihi summa lam yartaabuu aamanuu billahi wa rasulihi summa lam yartaabuu wa jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu saadiquun sadaqallaahu al-aziim wa ballaxa rasuluhu al-kariim wa naxnu ala maa qaala rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin allaahumma ijcal al-qur'aan lanaa fi dunyaa qariina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyaamati shafiica wa alaa siraati nuura wa ilaa l-jannati rafiiqa wa baynana wa bayna naari sitran wa xijaaba wa ilal xayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wujuudika wa karamika yaa karamal akramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk cin ak seen njaboot noo ngi ci suuratul xujuraat aaya fukk ak ñeent muy aaya quatorze araab yi ñëw nañ ci yonente ba ne ko gëm nañ mu ne gëmu leen loolu nag noo ngi ñaan yàlla bu mu nu dal ndax kat li des ci laay ji imaan ak islaam rekk ci la ko yàllay wax li des li des saar yu bokk imaan ak islaam rekk la ko yàllay wax ndax yàlla jàngale na fii nit mën naa am lislaam te amul imaan jàngale na ko fii nit mën naa am lislaam te amul imaan waaye it nee na léeg nit di bàkkoo ne moom jullit la sunu borom ne loolu moom bu jarumaa wax a naasa bi diinikum waaw boo ñëwee bàkk mu ne yamunnuuna alayka an aslamu waaw kon imaan ak islaam ñaari yëf la jullit ak jullikat jullit ak mu'min wala muslim ak mu'min yàlla dàqal nañuy seen imaan seenu mu'min saxal seenu muslim yàlla bu nu dal nu tolloon ci imaan googu nag mbokk yi dafa am lu muy ëmb ci biiram imaan googu yàlla lay wax ni ñee gëmuñu ko li tax gëmu ko li tax mu ne leen gëmu leen mooy ñoom seen imaan dafa dafa ëmbut yu nuy wax ba ca jiitu dafa war a ëmb am gi yàlla am am gi yàlla am dafa war a ëmb ci am gi yàlla am ne yàlla kenn la yàlla kenn la bu fi ñaari yàlla amoon asamaan ak suuf dana yàqu asamaan yàqu suuf yàqu yàlla kenn rekk la tabarkal waaye mu ëmbaale nag ne yàlla moomu nekk kenn dafa mat dafa mat yàlla ku mat la matam googu nit ki da koy gëm waaw yàlla ku mat la moo tax ñu jàng ci alxuraan man ko doon jàng ci bind bi weesu qul illahuma malikal mulk qul neel allahumma malikal malikal mulki tuuti man tasha yàlla moo moom nguur moo koy jox ku ko neex waaye moo moom nguur moo koy foqar ci ci ku ko neex professeur yàlla fi wane na ni nit bëgge nguur ni nit bëgge nguur moo tax yàlla du wax maa koy jël ci ku neex daf ne maa koy foqar ci wa tanziu moom moom nguur mooy teral ku ko neex mooy toroxal ku ko neex ndax yooyu yépp ci loxoom la nekk waaw nga ne ko nag innaka ala kulli shay'in qadir lu ne nga man lañ taxawoon ci sunu bind bi weesu te mooy bindub démb bi ci muxtawayaatul imaani wala muxtawal imaan gi nga xam ne moom la yàlla bëgg te ba ko ko wax ne ko aman naa du la wax xullam tu'minu yàlla nañ ko bokk yàlla kàttanam googu matam googu moo tax tëliwul dara tëliwul dara waaw su nit nekkee ci njàqare ne ko kaay mu ñëw bu ñu nekkee ci lal feebar ne ko kaay mu ñëw bu ëllëgee yax yu funux yi ne ci biir suuf yépp mu yëlëb leen ñu jóg waaw mu ngoog mooy delluwaat mbindeef yi nam leen tàmbale woon awwala mara wa huwa ahwanu alayhi loolu lu ko yomb la waaw xam naa ñiy ji gerte xam nañ ci dara ñuy ji ñuy ji mango xam nañ ci dara képp koy bay ni nga yore jiwu yi mu dee waaw koŋ nga def ci suuf mu tooy xepp génnaat nekk lam nekk niruwaat ko loolu ku mu ku ku mu jàngalul dee ak dekki xamuloo li xew waaye nelaw mii rek nelaw mii rek waaw moo tax mu ne ci alquran ba tey auzu billahi min alshaytan arrajim tabaaraka alladi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shayin qadir waaw waaw tabaaraka alladi biyadihi almulku gàcc nga laa maa ki nga xam ne ci loxoom la nguur nekk wiiw yàlla mi nga xam ne ci loxoom la nguur nekk wa huwa ala kulli shayin qadir moom mi nga xam ne telewul dara lépp la man yim jomb moo fi am waaye yum tële amu fi waaw yàlla yum jombola am waaye yum tële amu fi lépp la man moo tax mooy alxakimu lazi la laa yaxluqu shay'an abatha mooy ki xereñ ki nga xam ne bindul dara sànni ko rek comme comme hasard mu dem waaye bàyyiwul dara it Sudan waaw du def jenn jëf lu dul jëf jooje am na lum ca jublu waaw moom sunu borom loolu mu tëral nag ki ko xam-xam ko ki ko réere réere ko bu ko yàlla baaxewut réere gi mu koy réere du gind ki mukk ma tax ci penc mi bi yàlla nekkee alxakim la waxoon ne la malaaka ya waxoon man naa am ci penc ndax malaaka ya bi leen yàlla ni inni jaa'il fil ardi xalifa dañoo def ñoom tam benn campagne pour yàlla indi leen ndax xilaafa gi bëggoon nañ ko xemem nañ ko bi yàlla ni inni jaa'ilun fil ardi xalifa ñu ne ko kon xam naa noonu lay doon waaye xam naa nun lay doon ba ñu yëgee ne bachar lay indi muy mbindeef doomu aadama lom ci la tàmbali na ko yàlla ndax dangay ngay yóbbu ca suuf koo xam ne dafay yàq di fa tur deret nun de boo yóbboo dun yàq duñ tur deret te dañuy sàbbaal ba nga doyal loolu lañ ko wax yàlla ne dina fi indi nit daal di fii indi nit nag nit toll jamono joj loola malaaka yi waxoon ca lañ nekk di tuur deret di tuur deret loola malaaka yi waxoon nit ñi ne ci di fetal ay nit ñuy faatu ñuy dóoru jaas yi nit muy faatu waaw ñu koy na muy faatu léegi ñu àgg ci rendi ko ak rayog siif penc mi ne ñol ñol ne kur doomu aadama dellu ca loola malaaka yi joxoñoon ne ko loolu la ñuy bañ ci nit sunu borom danaan xam naa lu ngeen xamut danaa wut ay loi yóbbu ab téere jox ko waaw loolu la ko wax fa imma yatiyannakum minni huda fa man tabi hudaaya fala yadillu wala yashqa njub googu ñu andil nag mooy alquranul karim ci biir alquran bi yàlla bëggee tuuru deret yu bari yu jóg fi ak rey jógi fi yàlla bëgg na lool daal di yebal njool màkk ne ko yëtal ma leen yëtal ma leen projet de société bii lu jëm ci atte mu ne amu ah, danaa ci addu addu ci lépp loo xam ne da caa sévère rek mi ngi ci biir alxuraan waaye fi ne nun doomu aadama noo yàlla gëm nañ la gëm nañ si yonent bii du Muhammad li lay wane ne gëm nañ la mooy ñu ñoo ngi woor loolu dañ wax yàlla li lay wane na gëm na la nag mooy noo ngi woor waaye kutiba aleykumul xisaasu ñu ne ko ah, boobu nag moom suñu borom mënuñu ko ndax dañ ko weesu bul nu fi indil ay acte yu yu bu lu nu ko fi indilew suñu borom loolu loolu daal mënuñu ko mu ne kutiba aleykum in taraka xay ahadukum in taraka xaynal wasiya ñu ne ko loolu tam mënuñu ko ñun daal liñ man mooy woor mën na noo julli li ëpp ci ñu julli ñu jullee suñuy kër nag wax dëgg yàlla <laughs> te te te ko wax mu teg loo xam ca dënd ba mbokk yi lii xew ci pinc bi barki démb bi yàllay wax ak malaaka ya la malaaka ya ne ko woon boo leen fa yóbbu dañuy tur deret yàlla ne xam naa lu ngeen xamul bu ma fa yóbbooy bu ñu ko jëlee dara duutu turu waaye noonu nag loi yooyu lañ na yàlla duñ ko def te jàmm dana am loolu lañ ko wax suñu borom du ñu def yi ngay santaane te jàmm dana am boo nee leen ñu naa sharia sharia mbir mi mbir mi démb bi fi loi yi nekk fayul kuñ tooñ wala pen de mort bi fi nekk réew mi teewutoon réew mu layig la mu jóge fi ñol ñol ji am ñu xalaat lu ko fi jëlee waaw ñu ñuy xalaat lu ko fi jëlee ci lañ toll léeg-léeg doomu aadama boo waxee rek mu ne sharia mu sharia moom lu tax ñu ragal ko sharia lu tax ñu ragal ko kere ba mu waxtaan ak aada day aada daf mu jàgg na ko yow mi yaay sharia mu ne ko mu ne mu ne ko waaw lu tax kon ñu ragal la mu ne ko waaw kay sama wujj mooma moom mooma mooma sëlëm waaw sama wujju moom sëlam kuy sa wujju mu ne ko wenn wujju képp laa am mooy laïcité la laïcité moom dong la am ci wujju awma weneen moom moo wax nit ñi ne leen man maa mel nii damay dëgg ay loxo damay rey ay nit du rek laa fi nekk nu ko man ne li nga man tey bu wute nag lee ñoom ñaar seen waxtaan wu amoon na solo defoon naa ko fa waxtaanu fajar ndisaan mbokk yi peine mooy lan walakum fil walakum fil qisaas xayaatun peine de mort mooy lan yaa si a kutiba aleykumul qisaas luy qisaas qisaas docteur Ablaye Lam ñoom ñi jàngale usul nañ ne tekkiwul dara ku tooñ fayul leen ko fayul leen ki tooñ wala boog ku fayul leen ko loolu rek lay tekki nag ku ñu tooñ fayul leen ko waaw fekk jànq ca nga ñëw ne ko fokk ñu ànd maag yow siif walla bëgg koo siif mu bañ nga rey ko ñëw toog tegale say sees di nangu ay njaal waaw tabarkal seet tët loolu day mi ngi fi de li ko fi mën a jëlee nag yàlla moom waxoon na ko waaye noonu mi ngi noonu rek droit de l'homme nag nee na bu ñu reyee waruñu ko faye ak rey droit de l'homme droit de l'homme nee na dellu ci ci acte yi ak tardé la droit de l'homme nee na avancé nañu waaw kon ndax na bu fekkee avancé gi mooy bët bu set ñu rendi kenn ku ci sa jot rek ñu rendi la ku ci sa jaboot jot ñu rendi ko baax na baax na de macha allah droit de loolu baax na droit de l'homme nee na ko sàcc kenn du ko kenn dagg loxoom droit de nee na ku ku jël yëfi jaamur sax bu buñ koy génn ca télé ba kenn warta génn xar kanamam droit de nee na bu kenn filmé kenn kuy def crime baax na de ala kulli xaal sunu borom moom mu ngi toog di xaar rek am na nag lum dig koo xam ne kii da ngaa rey ku gëm loolu moom ma ngi koy ma ngi xaar képp ko rey ku gëm loolu ma ngi koy xaar waaye ci àdduna si nag li tax mu dox ba ak rey jóg fi loolu moom proposé nañu ko waaw ala kulli xaal yàlla daal dafa mat sëkk laa yafalu filan aw yashrau sharan illa li xukmi waaw nee na malaaka ba mu leen waxee ne leen euh, xamal leen ma tur qaalu subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana moo tax ku yàlla xamal nga xam kum xamul doo xam innaka anta alimul hakim qaalu subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim ca baqara aya 32 waaw waaw ah anbiyaa u yeeg awliyaa u yeeg ulul albaab yi ñoo ko seedeel loolu anbiyaa yi seedeel nañ ko seedeel nañ yàlla matam gi awliyaa yi seedeel ko matam gi ulul albaab yi seedeel ko matam gi alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana maa xalaqta hada baatilan subhanak ndeysaan ndeysaan rabbana maa xalaqta hada baatila yàlla nee na ca awliyaa u yëg anbiyaa u yëg ulul albaab yi ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla ci bu ñu taxawee di ko fàttaliku ci bu ñu toogee di ko fàttaliku ci bu ñu tëddee tey xalaat ci ni mu bindee asamaan ak ni mu suuf ba noppi di ko bàkk nag rabbana maa xalaqta haza batila dafa dara ci neen baa ngay fo ne ko subhaanak gàcc nga laa maa yow mbokk yi ngi suratul xujuraat aya 14 qaalatil arabu amanna qul lam tuminu yàlla huwa rahimu ni mu nekkee rahman noonu la nekkee rahim rahim nga xam ne yërmandeem moo jiitu meram nee na yërmandeem ji ñëpp ci xaj xam-xamam bi fépp la daj alquran nettali nañu ko ca waxi malaaka ya kera ba ñu ñaan ba malaaka yi di ñaanal doomu aadama ci kaw suuf ndax ñoom mujj nañu reconnaître ne ah kon kat yàlla li wax noonu la waaw nangu nañu victoire bi nga xam ne moom la doomu aadama am ci ñoom nangu nañ seen defet waaw parce que keroog ndaje ma ba ñu ba yàllay tëral examen ba pour xam kan mooy ñëw ci suuf malaaka yi la wala nit ñi la nit ñi ñoo gañe waaw doomu aadama moo gañe waa ñoom malaaka yi nangu nag seen défaite nangu victoire am koy ndokkeel rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma rabbana wasi'ta kulla shay'in shay'in rahmatan wa ilma mu ngoog waa ndeysaan ñu ñuy ñaanal doomu aadama lañ ko waxoon na ne yàlla sa yërmande àgg na fépp sa xam-xam àgg na fépp waaw noo ngi lay ñaan nga yërëmal ñu euh, sa jaam yi di doomu aadama waaw sunu borom tontu adaabi usibu bihi man ashaau wa rahmati wasiat kulla shay ndeysaan sunu borom ne su sumay duma damay tànn su may yërëme damay maasale allahu akbar yàlla nee na su duma mu ne amu ne damay tànn adaabi usibu bihi man asha su may duma damay tànn ñu ne ko waaw mu ne wa rahmati wasi'at kulla shay su ma damay maasale allahu akbar waaw loolu la ñuy jàng ci alxuraan bu ñuy tàmbali kaamil bi ca kaw moy mooy bismillahi rahmaani rahim allah nga ne ko luy kuy allah mu ne arrahman kuy arrahman arrahim waaw ngir yërmandeem googu mu teg ci kaw matam gi ndax de ngi yem ci mel ni mel ni euh, jiit bari bari bari tooñ foofu la matadi yem sunu borom yërmandeem googu yaatu ba tax mu ne qul yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taqnutu laa taqnatuu min raxmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamica innahu huwa alxafuru raxim ndeysaan waaw mas nañ cee jaar ca ba ñuy toll ci suratu xaafiri waaw wala zumar ngeen baal ma waaw mas nañ cee jaar mu di yàlla nee na yéen sama jaam yi nga xam ne seytaane jàpp na leen ba ngeen jàpp ne yàqu ngeen yàqu ba defee dut leen jag mu ne mu ne maaman tolye yi waaw maaman tolye yi sama waaji sama mbokk ma xaban jaw suma ma masaan ne kumox ci oto mbaa ab oto ne ma komux <laughs> ba ba ma mokkalagul yëf yi moom oto ne komux lum nor nor su ma ko ñëlee xàbbaan jaw ñoom day xëy rekk mel ni daluñu ko woon waaw waaw tabarkalla ñoom ñoom Mouhamadou Sarr mii ndeysaan ci fajaa nun la ci mel waaw keroog ba sama chauffeur ba génne àdduna ndeysaan Lamine Diop al na ko yàlla yërëm saar doxe fu ñëw rek ne ma munuma koo wuutu de lisan munuma koo wuutu ndax Lamine keneen la woon waaye daal loo ko daan sant comme nekku fi bu jotee sant ma ko rekk mu xam ñoom buñ jàppee oto lu nor nor nor noddanti ba nga defee nu du woon mi buñ pintiraati rek mu mel ni lu bees loolu sax fi ne moo tax sunu kër yi ak sunu oto yi jafeñ-jafe ñi penc mi tax na kër yi léegi ni téléphone yi mel la mel abiyaas rek ngay def ndekkete tabarkal la waaw sunu kër yi <laughs> am na ci yoo xam ne 1948 lañ ko tabaxoon wala ñun bi ñëw bi ñëw bi ñu ñëw Dakar 79 fi leen ko fekkoon ñun kër gañ dëkkoon maag Pape Dieye ak mën numbe dal ko yàlla yërëm kër gañ dëkkoon bu fii nu toog si <laughs> ma noppi sax waaye daal noonu doomu aadama yi di mën a noddantee lu yàqu nga indi lu paan ñu defar ko sunu sunu table de mixage bii fi ne bu bu ma ñëwee kostu ko si mënu ma ca dara bu ma wooyee Alioune Badara Socé mi ko jàngi woon ñaari minute rek mu ne ma c'est bon yàlla bind doomu aadama doomu aadama yi dem ba mu yàgg mu paan doom doomu aadama dem ba mu yàgg mu paan waaw nekk nit ku paan ne ci biir nit ñi ah sunu borom ne ko mën naa réparer paan bi mu ne maa la ko wax paan yëpp laa mën a réparer allahu akbar maa man maa man tôlier yi maa man mécanicien yi ñu ne ko lu tax mu ne allah ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabir tôlier bi defarul oto bi mécanicien bi noonu boo demee ci la marché Alizé Cheikh Diom yal na ko yàlla yokku defarul téléphone waaye fii nag ba sa bos paane boo ko yëtee te barkal toogal fee nga toog tuuti mën a am yàlla mu ne man mi nga xam ne maa defar nit kon su paane mën naa koo defar waaw boo demee tey ci docteur yi sa tànk am jabet dina tànk ba tipp teg fële bu dee loxo la léeg-léeg ñu ne loxo ba tipp teg fële man gis naa kuñ daggub loxom gis naa kuñ daggub tànk man mii gis naa ko gis naa kuñ xàppati ci poojam def ci benn barab waaw léegi nag ba deme ci ñoom ñoom ma yor Fall yàlla na yor bu ñuy jaay pomme de terre bu ca benn nébee dañ koy dindi bu ñuy jaay guro bu ca benn sànkare dañ koy dindi ñun nag nee nañ ñi sànkar ak ñi fuus yëpp ñi paan yëpp nañ boole ma tax sunu borom gi nag moom nee na lu waay man mel mën naa laa réparer bu leen naagu mukk ni mënuma leen réparer inna laa yaxfiru zunuba jamia waaw paan yëpp paan yëpp laa mën a réparer huwal xafuur moom mat ba suturaam mat sëkk kum ci yiir tabarkàlla dootoo torox arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla na nu yërëm mbokk yàlla jooju ku ko am yàlla jooju koo am lu lay jural mu meral la bu ca nekk yàlla jooju ku ko am fexeel ba la lay jubaleeg moom rekk mu nga ca loola waaw ñu ne falaasafa yi ñoom aristoog ñi mel ni ñoom am na ñu doon wax ne laa silata lahu bi hadal alam ñu ne yàlla mook àdduna siixuñ ci dara kon teg leen fële yàlla ndax mu mën a dem waaw baax na sëriñ Cheikh nee na bi bi bi gaañu ne yàlla yàlla faatu na waaw seeni noon jàpp leen di leen duma yàlla ne waaw waaw doo intervenir mu ne mukk comme nee nekkuma fi nan laayu intervenir ñu bàyyi leen ñu duma leen ba ñu sonn waaw tabarkalla première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale gis ngeen ñi ci xew waaw duggoon ko nag leen noirs africains kon tabarkalla na gën si Allemagne moom moom France ma wax la ko tey waaw tabarkalla laaj ko ñoom professeur Iba Der yal yàlla yokk ko wér waaw yàlla ku mat la waaye loolu ñu ne dafa absente ci kawnu bi ñoom ñoo koy wax grec yi ñoo koy wax waaw seeni xalaat la al yunaani yuuna ñoo koy wax waaw bëgg a fexe it ba ñu toxal xalaat boobu indil ko Occident su ko defee ñooñu nga xam ne ñoom la yaarifuna al islaam ñoom jeneen yàlla lañ xam bu ji bokkut ak ñun ji ñu xam waaw yàlla ji nu xam ñun te muy santaane ak digle ba digle digal nu koor gi ñu na ci yàlla moomu xalaqa al arda wassamawati al ula xalaqa al arda wassamawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa yàlla moomu lahu ma fi lsamawati wa ma fi l ard wa ma baynahuma wa ma taxta sara yàlla moomu wa in tajhar bil qawli fa innahu yaalamu sirra wa axfa yàlla moomu laa ilaha illa hu lahul asmaul xusna waaw tabarkàlla kooko yàlla ji nga xam ne moom la ñu xam moo bind suuf moo bind asmaan yu kawe yi mooy arrahman moo yemoo ca aras loolu mu bind nag moo ko moom moo moom li ci asamaan moo moom li ci suuf moom li ci diggante bi moom la ca suufa suuf boo waxee ca kaw dégg na la boo waxee ca suuf dégg na la moo tax moom rekk mooy yàlla tur yu rafet nag la am waaw waaw moom ngay jàng ci ayatul kursi matug yàlla gi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum waaw yàlla gi moom mooy yàlla moom dong mooy yàlla moom alxayu daf cee def nag alif ak laam moom rekk kay dund dund rekk moom dong alqayuum mooy ki taxaw te taxawe yi mu war a taxawe yépp ba dara du ca manqué moom nag li tax mu man ko laa taaxu si na du gëmmentu walla nawm waxuma laa muy nelaw yàlla du gëmmentu waxuma laa muy nelaw matam gee tax ndax bu gëmmentu woon dajjant bu dajjant woon adduna tukki hmm? maa la ko wax de buy dajjant rek addunay tukki gis nga léeg-léeg nga toog ci jàkk yi gis ku yor ak kurusam bu daj bu kurus gi waddee rek xamal na dajjant na <laughs> ne si jàkk yor ak kurus yàgg na nga def kurus ngir but luy loolu mooy kon moom dajjant na waaw yàlla bu dajjantoon rek adduna tukki laa taxusu sinatun wala nawm mbokk yi yàlla jooju huwa xaaliqu kulli shay lu fi nekk moo ko bind yàlla jooju raasiqu kulli shay ku am wërsëg mooma yàlla jooju mu dabbiru kulli amr lu dox moo ko doxal axaata bi kulli shay'in ilma lépp la xam yàlla jooju lépp la xam lépp la na ci kaw suuf ah euh, bind na ko recensé na ko ba xam lim ba ñaata la actuellement yàlla xam na doomu aadama ci kaw suuf ñaata lañ xam nañu ci góor ñaata lañ xam nañu ci jigéen ñaata lañ yàlla xam na ko moo tax mu mën a préparer aljanna ba ñu ba nit ñi bari bari bari bari buñ demee ku ne danga nga am kër incha allah ñuy dugg aljanna waaye xam ne jigéen ñi ñaata lañ waaw xam xale yi ñaata lañ tabarkàlla bi mu xamee ne mën nañoo dem aljanna <laughs> jigéen ña manqué mu bind xóorul ayn bi nga xamee ne yàlla xam na ne bu ñu demee aljanna jigéen ñi fii rek ñu ànd dem mu ne ah, mu ne kon jigéen ñi manqué ndax bu fekkee ku ne war ngaa am sept cent femmes hmm, il faut mu bind moom yàlla luy motti lim bi xam na ko nag mu xam ne kon bu bu nit ñëpp faatoo ñu ci war a dugg aljanna ci jigéen nii lañuy ñuy toll su ko defee óorul euh, xóorul ay nii mottilil góor ñi nombre boobu <laughs> allahu akbar ci sama borom mu ngoog loolu mu ngi noonu nit ñaa koy def di xalaat euh, ñu dañoo bëgg añ si kër ga ñu ne ñaata ngeen bu dee ndaw ku ndaay bu ñu ne ñoom ndaw ku ndaay juróom lañu ñetti góor ak ñaari jigéen <laughs> seet ñetti góor ak ñaari jigéen ñu nekk juróom bu yóbbu nga sóor juróomi kilo ceeb ndax ndaw ku ndaa bu ne ceeb kilo koy doy waaw cey yàlla yàlla kon xam na nombre ñi ne ci kaw suuf ñi koy tooñu xam na ñaata lañ ñi ko tooñu xam na ñaata lañ waaw ñépp la xam ñaata lañ xam-xam àgg fépp mu bind te yemale natt te jubal di dégg di gis waaw xam secret xam déeyante xam na ko waaw maa yakunu min najwa thalathatun illa huwa raabicuhum wala xamsatun illa huwa saadisuhum wala adnaa min dalika wala akthara illa huwa macahum aynama kaanuu thumma yunabbi'uhum bimaa camiluu yawma alqiyaama di san ngeen baal ma ci baat bu naqari beeg nit ci koor gi defee jeexantal <laughs> waaw ndax fukki fan ak juróom benn ngi nii añu ma ndeysaan naanu ma ndoxum bëccëg yooyu ma mbiskit yàlla na ma yàlla yërëm waaw lu tax yàlla lu mu dégg na ko ci koor ndax xam na ne dafa métti yàlla nee na foo fekk ñett ña euh, ñett yi di déeyante mun naa mu ne ñeenteel ba réunion bu ko ci kaw suuf rek yàlla bokk na ca réunion boo dégg ci kaw suuf yëgal na yàlla bokk na ci ah maa la ko wax de maa yakunu min najwa salaasa illa huwa raabiuhum illa hu illa huwa raabiuhum bu am rek yàlla bokk na moo xam bitim réew lañ koy réunion ya moo xam ONU moo woote réunion ba moo xam Amnesty International ñoo woote réunion ba moo xam droit de l'homme droit de l'homme yi ñoo woote réunion ba moo xam sëriñi daar yee woote réunion ba moo xam assemblée ko woote moo xam président de la république moo woo ministre yi fu fu réunion amee rek yàlla bokk na ca réunion bu am rek yàlla bokk na ca waaw moo tax euh, jamono ji alternance amee alternance bu njëkk ba ministre daje di bëgg a def waxtaan ñu seen ñoom euh, ñoom euh, Moustapha ñan Moustapha Niass ñoom lu yokk wér honorable euh, Moustapha Niass ñu seen leen ñu tàllal seeni loxo mu ne ah baax na ci de di ñaan ma ne baax na ci de ndax réunion boobu ngeen def noonu yàlla fekk na ko lu fa jóge ci ay xalaatit yàlla xam na maa yakoonu min najwa thalatha illa huwa rabiuhum fu ñett di réunion rek quatrième ba yàlla ah ko kay kon war na bu ñuy réunion bàyyi ko ci xel ndax ma nga fa ñu ne waaw mu ne fu ñeen fu juróom ji réunion maa leen juróom benneel fu juróom ji réunion maa su gënee tuuti loolu du tee maa nga fa su réunion bi ëppee loolu du tee maa nga fa assemblée générale ak ñoom seen yooyu ndekete kon mbokk yi xalaat yeeg waxtaan ci kaw suuf yépp lépp la yàlla fekk ma nga ànd ak ñoom ay na maakaanoo fu ñu mën a nekk waaye bu yomal xiyaamee mu defal kon randi ña ña wóote woon réunion ya <laughs> su may nabbi uhum bi maa amilu yomal xiyaam bu ñu réunion ba noppi déeyante yàlla nee na procès-verbaux yëpp mi nga ma yor procès-verbaux yi réunion yi waaw ndeysaan yëpp mi ngi ma yor waaw waaw yëpp procès-verbaux yëpp yàlla nga ko yor bu yom yomal xiyaamate mu ne diw ak diw mbooloo sàngam amoon ngeen réunion bi sàngam yéen a ko réunion woon place sàngam nangami nit ñoo ko fekke woon réunion ba ci nangam la jëmoon divers yi sax di wax na ca nangam ak nangam nga xam ne ñun tam bu ñu nekk ci conseil économique social et environnemental di réunion ndekete yàlla nga fa waaw ndekete yàlla nga fa cey allahu akbar lawul xalqu wal amru yàlla matam gee tax moom moom li fi nekk lépp ndax moo ko bind waaw muy dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi waaw di génne luy dund ci lu dee di génne lu dee ci luy dund di koo neex kon yàlla mi ngi fi de ma ne waa àdduna ñoo bëgg fee jële yàlla kenn jiituwu ci grec yi waaye nee na ñoom dañoo bëgg àdduna si yëpp jële fi yàlla waaw ñoom loolu lañ bëgg àdduna si yëpp nañ ànd jële fi yàlla wan ko ne ko absente nga ko ci li ñuy def wan ko ne ko Euh, gëm la bon enfin gëm nañu la mais nag sunu mbir yi ci penc moom bàyyi rek doxal ko suñu bopp te yow nga cëpp sa loxo suñu borom ne dox leen wa man arada an dikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma teg leen seen baaraam foofu mbokk yi ñaan borom subhanahu wa taala may dund ba ëllëg te weesu ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew mi ko wër ngi jégglu soxna yi di jégglu sëriñ si masque yu damm yeeg yépp rek tubarkalla dañ leen a wuutu fii rek waaye da yéen nu raw ki nekkoon ci wàllu xarala yu ma di seen mbokk Alassane Thioune yal na yàlla sàmm ko te nangu kooram nangu suñuy koor ngeen am nañu tafsir beeg seen mbokk Alioune Sall ak i sponsor am lob maam jaaraak ñu ko fekk seeg ñi bëgg ñëw yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi